fii Sénégal kon fii Sénégal. Mhm. su jàmm amee rek état la bu amul du état. bu jàmm amee état la bu jàmm amul tamit état la. Hmm. kon coowal Sonko bi état lu ci ban taxawaay la ci war a am. nga tey ji bu ñu jëlee Ousmane Sonko mën nañ jàpp ni état daf ko tooñ. nu ko tooñee. dafa violer ay droit si nag bu ñu tàmbalee Ousmane Sonko citoyen la boo xamante ni Sénégal la juddoo. Mhm. fii la jàngee fii la màggee fii la màggee fii la jàngee. waaw lu bari fii la ko xamee. fii la liggéeyee. Mhm. def ña def ci administration lu tolloog quinze ans. Mhm. droit may ko moo aspiré nekk président de la république nekk jiitu réew mi comme ni ko citoyen Sénégal à partir bu amee trente cinq ans amee. alalu askan wi ñëpp ci bokk yam hmm. parce que lu ñëpp bokk la bu ci gisee loo xamante ni naka sudul noonu la am na droit mu dénoncé ko hmm. mu commencé ko dénoncé ñu dàq ko administration est-ce que dàq boobu tegoon nañ ko ci yoon tax na suuf la hmm? bu dee ni ñu ko analyser te na est-ce que dàq bi ñu ko dàq dëppoo na ak justice dañu boo juriste yi ñu laaj la man yow laa koy laaj. nga wax ji pour man dëppoowul ak ak yoon. ñu jóge ci loolu on passe mu dem di def effort personnel am bi fal ko def ko député. Mm-hmm. au niveau du parlement mu nekk un digne représentant du peuple. continuer la mu doon wax jamono ya mu nekk ba mu nekkee fonctionnaire d'état ba ko peuple bi jëlee yóbbu ko assemblée boobu mooy peuple bi ñoo ko fa teg. donc il représente le peuple commencé di défendre le peuple di di défendre les droits le droit du peuple ak xaalisu askan wi ak àqu askan wi lu ne daj na ko foofu ñu jóge ci loolu bagages yi ñu ngi commencé le 21 juin euh, avant problème bi ak euh, Adji Sarr une citoyenne boo xamante ni kenn xamu ko woon avant xëy suba porte ko plainte ne def ko siif sàkku daf ko sàkku mm-hmm. euh, en tant que député dafa am immunité parlementaire mm-hmm. kenn waru ko dem convoqué noonu parce que dafa am immunité parlementaire kenn waru ko convoqué noonu mm-hmm. dañu waroon njëkkee parlement jaar fi ñu war a jaar jaar fi ñu war a jaar pour mu mën a yegg ci yoon pour mu mën a yegg ci yoon defuñu ko ñu xëy suba ne convoqué ko ne dañ koy jëli kan moo ko tooñ ba tey yaa ngi ci logique bu tooñ bi. atia ñu continuer état ko tooñ. Mhm. une deuxième fois. <laughs> ñu continuer muy résister léegi nag yow état muy résister ñu ne dafay yi fitna. Mhm. ñuy résister mu ne respecté wul ñu ne ñu ne respecté wul institution yi. Hmm? muy résister ñu ne respecté wul république bi. ba tey mu jural ko lii. ba tey mu juróol ko lii est-ce que yaa ngi dégg wax ji. bu baax xam kon kon état état état souvent day tooñ ay ay ay askanam. normalement état warul tooñ askan wi parce que état li ko war mooy sàmm askan wi mais ñan lañ dénk état. Mhm. bu ñuy jaawalee état avec les acteurs politiques. Hmm. lan nga bëgg ñu bañ ko def. parce que euh, bu fekkee ni yow tey jii ma jox la benn exemple. ban dëkk loi yi fan lañ koy voté. ci assemblée. assemblée. Hmm. léegi assemblée boo fa tegee de corrompus nag. ah ñuy voté selon li ñu bëgg mu dugg rek. tu vois. Hmm. boo fa tegee ay politiciens et de corrompus et des ignorants ñu vote loi yoo xamante ni euh, loi yi dëppowul ak euh, dëppawul ak ak ak ak ak la paix sociale. mais foofu kon est-ce que du li ñu war a njëkk a kii moom mooy euh, xool ananes def ba mën a tabb député bu bu mën a représenter dignement le peuple est que du loolu la ñu war a njëkk def sax. mais noo koy defee tey jii tey jii bu ñu jëlee lii le cas présent euh, kii la mooy direction des élections la waaw ñu dem foofu sax DGE. ñu dugg ci DGE. Mhm. mais élection yi passé ba ñu waree defar euh, parlement ba ñu waree ba ñu préparer élection député yi. Mhm. mais ñan ñoo éliminer listu listu listu yeewi askan wi. Mhm. titulaire yi. Mhm. ñan ñoo ko éliminer dugal dugal waa banc bi. waaw départ bi ñuy waroon départ ñu teg leen ci tuus bi. waaw ñan ñoo ñan ñan ñoo ko éliminer mhm. ñan ñoo éliminer euh, liste titulaire. bu tey état la rek. waaw mën nañ ne euh, la direction des élections mën nañ leen ko jiiñ. en quelque sorte. nañ leen ko jiiñ. ñoom la rek. xam nga ñoom la conseil conseil de état sénat DGE. ñu DGE benn la. comprendre nga léegi DGE boobu. état rek est-ce que bon yow léegi ma jël la benn exemple yow bu fekkee ni parlement mooy doxal dëkk parce que parlement xam nga xam nga gis nga dëkk dafa nekk loo xam dem nga démocratie. si du sérieux quoi. non démocratie dafa dafa dafa fragile. Mhm. parce que démocratie ci dëkk mooy si les sages ne dirigent pas ce sont les. les ignorants qui dirigent. Mhm. parce que démocratie day jox tout le monde la droit de parler. kon yow loo foofu loo ma fa bëgg a wax. mais tey jii bu fekkee ni DGE moment boobu est-ce que il était en bonne parce que yow est-ce que entre parité parité góor a jigéen góor a jigéen góor ak jigéen. yi ñu war a def est-ce que loolu jaroon na ñuy éliminer ay liste tutélaire la crème de la politique sénégalaise. Ah, foofu nag jëwriñ am na fa ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari noox noox de. muy déjà ñoom bu fekkente ne si sont animés de bonne foi. ouais mën nañ ne la loi c'est la loi. mais am na yoo xam te ne nit mënees nañ ko gérer à l'amiable woo nit ki ne ko jëwriñ kat juub nga fii est-ce doo dem ngeen xoolaat ko ngeen changer lii ngeen. mais loi lan moo ko tax a jóg. ah pour réglementer pour teg ci yoon. pour l'ordre social. loi loolu moo ko tax a jóg. en principe waaye yow léegi booy créer loi yoo xamante ni day créer désordre social nag. baaxul de mais mais jëwriñ <laughs> loolu daf may permettre ma ne la. Euh, li nga xam mooy teb bi xam naa ne nag keroog invité naa benn benn bokk yaakaar mais bugguloon ma wax remaniement ma ne leen remaniement bi ñu nemmeeku ca Sénat. Mhm. noo ko jàngatee. ndax lu illégal la wala lu légal la. mais moom nee na bu ma wax remaniement nee na daal changement. xaw ma chamboulement man man ma ne ko man daal remaniement laa tudd léegi yow chamboulement am changement ou remaniement jëwriñ ca Sénat ba noo koy jàngate ah ni ma ko jàngatee mooy ñi ko spécialiste yëpp jàngate ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo spécialité sur euh, sur euh, les lois mm-hmm. électorales mm-hmm. mooy les juristes en quelque sorte les juristes ñu ngi ko jàngatee noonu laa ko jàngate que ni am na déjà am na communauté comité bu war a attaquer décret bi. Mm-hmm. Euh, kii civil la. société civile société civile dañu war a dañu war a dañu bëgg a attaquer. une bonne partie de la société civile quoi. waaw dañu bëgg a attaquer décret bi. Mm-hmm. kii si la aussi expert de. Ndiaga Sylla Ndiaga Sylla expert électoral. oui. justifié na ne na forme bu ñu ko defee c'est pas dëppawul ak loi dëppawul ak constitution génn na nee na ko saa li wax ne wetuñ daam moom de mu génnaat tontuwaat ko ne ko monsieur le ministre maa ngi jéggalu ban ministre mais del wax ci loo xam ban ministre Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall seen ministre mu dëkk Tëngéej ah waaw Tëngéej moom bu xapp xappalee bëtam yi rek ma wax <laughs> mais bu ñu demee seen ministre bi leen ministre bi dëkk tege ci. waaw Major Fall moom xanaa moom man dama yaakaar ni moom moom moom ci wàllu boppam moo bind moo bind lu ñuy tuddee jurisprudence universelle quoi. mel ni da koo da koo sangoon naan ko de. waaw moom domaine yëpp moom juri juridiction pénale juridiction civile juridiction lu nekk mu bëgg ci nekk expert. juridiction constitutionnelle xanaa moom moom avant moom muy judd kenn daanul jàng justice ci Sénégal wala moom amul ñu ko jàngal justice. non il est bon mais xëy na souvent des fois moom day def ay positions. yoo xam ne bu xappa xappale bu xappa xappale ma ne bu xappa xappale bët rek ma ne mi ngi interprété de mi ngi interprété de. waaw yow bët yi moo lay wan moo lay wan. li mu jëriñ yaa ngi tooñ ministre bi ah mais mais comme <laughs> ah yow da nga da nga fekk si jaga si la. Ah, vous pensez que c'est illégal. waaw mais c'est sûr c'est sûr c'est sûr parce que jaga si la il a été reconnu comme un expert électoral avant. te tey comme li ñuy wax la sagesse daf ñuy demande lenn lu ci nekk ku ci xam dara na ci wax. nga ci wax léegi ñun citoyen am daal bi bu dara xewee dañuy dañuy déglu ñi ci xam dara ñu wax wax ñu xam comme maître Dundoy li mu wax ci affaire contumace bi. Hmm. est-ce que yaa ngi dégg citoyen yi dañuy dem gëstu sax. Hmm? même bu fekkee ki expert bi wax na sax citoyen yi dañuy dem gëstu non après suñ paree nag teg lépp ci table bi. xam nga xam nga ñoom dañuy wax ni ñu ne censé ignorer la loi. ba pare waaw ba pare wëlbati bu ñu waxee ci loi ñu ne waru la nul n'est censé ignorer la loi c'est contraire ñii liñ bëgg léegi. waaw nul n'est censé ignorer la loi moom mooy ku nekk war ngaa xam dara ci loi bi moom. waaw dara waru la um. waaw. léegi léegi les notions de base quoi. léegi ñun bu ñu ci waxee ñu ne waru leen ci wax parce que xam yow jàngoo ko nangam te dafa am mauvaise foi bi xam nga mooy lan bu ñu taxawee ne la non comme man du ma juriste mënuma ci wax yaa ngi gis dëgg dëgg bi nii mi ngi ne fang sa karaw xanaa lu yanu maanaa sax ak lu yanuwul maanaa kooku soxlawul jàng lu waat jàng dara pour xam ko am na yoo xam moom jaru de midi à 14 est-ce que comprendre nga bàyyi seen euh, jëkkooy capitaliste extrême boobu ñu ñuy def di ñu nelawal di ñu manipuler di ñu nelawal xam nga nit kuy nit kuy xoolee nga koy considere comme kuy nelaw su boobaa yow dañuy yaakaar ni yow yaa am problème ko tu vois. mais mais bu opposition bi di wax ne ñoom peut-être euh, ni ñu leen changé sax wala Doudou Ndir mooy le président bi ñu tëbal nga xam te ne nii moom depuis 24 euh, deux su suma juumul 5 ba tey euh, ci ci samay ci samay note non 2009 24 décembre 2009 lañ ko lañ lañ ko lañ ko ki woon. lañ ko nommé woon par décret présidentiel boo xam ne nii mu nekk war a jiite euh, Sénat mm-hmm. euh, mais kii am jeex na depuis 2015 ah kenn tebbiwu ko fa mais opposition bi daf ci toppoon di ci wax yëkkati ko waaw topp ci di wax mm-hmm. finalement ñu toog euh, ba tey jii ni ñu ko wala sax semaine bi ñu koy soog a yëkkati mm-hmm. opposition bi ne moom moom moom le fait que ñu jële fa waa ji metti wu ko quoi mais timing bi moom ci loolu lay dutee ndax da ngay ñoom seen ah wax nañ dëgg kay wax nañ dëgg parce que contexte bi ñu ko yooyu contexte bi ñu ko parce que le président répondrul demande opposition bi de président lu ko neex la def. ah bon waaw. nu mu defee lu ko neex. ah. kon ay calcul la. lu ko neex daal la def. président xam nañ ci calcule la dëkk moom. lu ko neex la def parce que dafa mel ni président bëggul kuy dogal loo xamante ni wute na ak moom la mu bëgg. président bëggul kuy dogal loo xamante ni wute nag moom li mu bëgg dafa mel ni loolu lañu gis d'accord waaw mais mais mais kon est-ce que est-ce que opposition tamit bu ñu ko teggee nii nii waroon na wax tamit wala normalement opposition bi heure bi waroon na leen fekk ñuy préparer manifestation manifestation pour la ah mais parce que à trois mois quatre mois des élections ñu ci ah. changé Sénat waaw loolu tamit loolu tamit question la de est-ce que équipe bu bees bi dina am. comprendre nga ba pare wëlbatu ko dégg eh, am na ci ñu nekk ci biir ñoo xamante ni festoon nañ ni dañoo bokk ci ay parti politique. Mm-hmm. te nee nañ Sénat ku bokk ci parti politique waru ci bokk. waaw da nga war a neutre en quelque sorte quoi ci say activités. non ku bokk ku ñu xam ne yow da ngaa mës a militer wala da ngaa mës ci parti politique waroo ci bokk. saa ah, Cheikh Awa Balla boobu keneen ak keneen ak keneen bëri na loolu yëpp jar na manifester. loolu yëpp jar na manifeste parce que yooyu yëpp ay signe la yoo xamante ni dafay mën a dafay daf day tax ñu sceptique ko dañu am ay doute est-ce que dinañ dem ci élection yu libre ak transparent ak inclusif yaakaar nga ko yow. non fi mu toll nii moom ak jëf yi man yaakaaruma ko. Ah, ah yaakaar ay njuñ njaaj yaakaar ngeen da ci am. no man man depuis le président taxaw ne du jël élection yi ci ministre de la jox ko organisation neutre laa am laa am toujours très sceptique man gëmuma ni Sénégal kenn mënu fi saa ci élection loolu gëmuma ko loolu man gëmuma ko personnellement ko ko gëm tamit yaa gëm mais man. kon élection yi day xeeñ sàcc yi ñu jëm ni en tout cas lii nii xeeñ nii neexul. waaw ci bu naree neex moom day xeeñ parce que match de football sax mais foo mu am consensus avant ñuy démarrer match bi. waaw ah, arbitre bi day woo capitaine bi woo capitaine bi. waaw. waaw ndax ma tirage wala yow fooy <laughs> jël camp yi. waaw ñu waxtaan su fekkee jubóowu ñu ñu def tirage. waaw mais consensus foo mu am. waaw ah, arbitre de consensus la koy wax. jeu sax de boo bëggee mu neex jeu. waaw dafa war a am consensus. dafa war amul. mais est-ce que jàppee nañ ko tamit. li est-ce que du ñoom enjeu yi dafa mel ni romb na jeu lii li may gis nii. non dama lay wax rek parce que fii dara du fi jeu même match de football. Ah du jeu waaw waaw mais dañuy lekk si nii dañuy liggéey waxin la quoi waaye mais lii amul consensus. làmb ji fi amoon bërki démb sax da ngay gis ne arbitre bi ñaata arbitre nga am ñetti arbitre. Mm-hmm. ñetti nga am. làmb ji ñetti arbitre nga am te ñaari mbër la. nga am ñetti arbitre ba pare wëlbati ko arbitre wax mbër bu ci nekk. ba mbër bu ci nekk d'accord ñuy ko a sëgg bëre mais xoolal rek naka lañuy mën a nangoo loolu ci làmb ji mais lu jëm ci destin wu dëkk destin wu peuple nga ne doo ko nangu mais tamit buñ nax sunu bopp ko finalement c'est compliqué ah sa dëkk hmm? dëkk bi compliqué na de non yéen yi naïveté la mais groupe groupe bu bees bi lan ngay xaarandi ci ñoom ban group bu Sénat bu bees bi l'équipe la nouvelle équipe. mais danga d'accord guñu ci ñoom. ñoom ñoom fi mu toll nii. Ah, est-ce que passé wuñ loolu. non d'accord guñu ci. d'accord guñu ci. nga ne dañuy attaquer décret bi kay. waaw. Ah. Ah dañuy attaquer décret cela veut dire que ils ne sont pas encore acceptés par le pop peuple bi d'accord ñu ci. est-ce ñu ngi déglu peuple boobu nga wax. ah léegi nag bu ñu déglootul peuple bi nag loolu nag cela veut dire que nag ça veut bu fekkee ni yow peuple bi moo la fal te déglootoo peuple bi loolu am na lu muy tekki ah. loolu am na lu muy tekki loolu mooy yow yaruwoo da ngaa yeeru hmm, c'est-à-dire ah. yaru ak yeeru bokkul xam nga muus muus bu yeeru dara danaan même ba jot bu ci jotee rek ko na ji ko hmm. <laughs> boo ko gisee muy yeeru na da ngay naan kii dafa yaru fekk day yeeru fekk dafa yaruwul day yeeru day yeeru daa am lu mu bëgg rek daa am lu mu bëgg rek bis bu ko jotee rek wala la jikko hmm. ñun sunu homme politique yu bëri noonu la ñuy taxalee dañuy yeeru mais yaruwuñu <laughs> yaa ko wax de kon baadu loolu moo tax ñoom souvent bu ñu jëlee décision muy indi coow day indi coow.